waaye wàññi wàññiwaat yeneen ñaar. ça nous fait 17 président Macky Sall ci Amadou Ba. yaa ngi wax sànq naan dafa yéex a commencé sa campagne ndax euh, soutien bi yéex na est-ce que euh, c'est un soutien boo xam ne daf ko def nii rek de façade parce que li ci des bëreetul te war nañ cee dem walla jàpp nga ne ci li ñu toll euh, taxawaay bi APR war a am ñu ngi koy def. parce que gis nañu benn au moins ils avaient déjà euh, tracé le lead. APR moo desoon. APR moo des ba léegi quoi pour man APR ba léegi dafa des ci biir daa d'ailleurs seen dernier communiqué bi c'est un communiqué c'est un sexe hallucinant bi ñuy wax ni ñoom ñu bëri ci ñoom d'accorduñ ci choix bi. nga xamante ni président moom la def pour soutenir Amadou pour choisir Amadou Ba. Mm-hmm. pour man même su fekkee loolu am na sax dañ ko waroon teer euh, noppi ko. Euh, bañ koo wax askan bi parce que déjà dugal nañ ci bopp askan bi ni ñoom ñi nga xamante ni ñoom ñoo porté Amadou Ba ñoom ñu ci bëri ci ñoom ànduñoo ànduñoo ak moom fësal nañ ko ci ci ci ci ci ci communiqué bi euh, président de la République balaa muy def choix. Mhm. dafa waxoon ni moom bu choisiree ba ñëpp d'accord ci dina ànd ak ki nga xamante ni moom la choisir ñu baatu campagne. gis nañ ni ba léegi baatul campagne loolu day tekki ni moom ki mu choisir kon peut-être euh, ñëpp ànduñoo moom moo tax moom mu téye tamit ay mu téye mu téye ay tànkam. est yoon tënku ko it. Euh, bon yoon je pense pas que Ndiaga Sylla dégg naa ko mu ciy wax ay ay ay ay président amul droit di kii mais bon. loolu je pense que je ne pense pas que yoon tere na ko mu au moins euh, génn parce que fësal na ko ba tàyyi. waaw moom Amadou Ba renouveler na ko confiance am et et tout. Mm. et je pense que quand même campagne bi tey moo ci des ak suba. ak ginaaw suba. Mm. Ah, peut-être que nañ xaar meeting de clôture bi au moins. <laughs> nañ ko génn ci <laughs> mu génn accompagner Amadou Ba au moins ci meeting de. clôture dina am lu mu def bu amoon tey dina am lu mu changer. bon yaakaaruma mu am lu mu changé mais au moins nit ñi danañ xam ni peut-être moom soutien bi li nit ñi wax peut-être euh, nekkul. peut-être ñu ngi koy hmm. soutenir mais su toogee nii rek ci rukkam ba jour élection bi euh, xam nga ñu dem voter euh, nit ñi dañuy jàpp ni yaa y toujours ce malaise là qui existe entre les deux hommes. Hmm. Hmm. ñu ngi koy déglu sax ci benn entretien bu mu accordé waa. BBC muy wax ne amul lu muy rëccu wala lu muy baal ak lu muy baalu ci affaire xëy na. sauf que reconnaître na ni. le report a été une période très difficile mon président. justement mais teewul am na yaram. waay teewul am na te loolu la ñu ah, retenir. Amadou Ba euh, lii finalement ndax nekk na loo xamante ne da koy da koy desservir wala il peut en sortir euh, grandi. bon en politique le plan politique. en politique boo amoo soutien yi soo amee soutien yu wàññeeku sa côté c'est toujours euh, c'est toujours préju préjudiciable ci yow maintenant nag Amadou Ba c'est un homme de lobby il est voilà il est il est il est vraiment très redoutable buy liggéey d'habitude du liggéey ci kaw ci suuf lay liggéey boo gisee ni mu xool ni mu ni mu waa APR kiiwee ba mu récupéré ba mu récupéré parti bi ba mu récupéré ba fexe ba Macky Sall porté ko euh, li c'est pas c'est pas c'est rien c'est pas un travail boo xam ne da koy def da koy da koy def na de parce que c'était pas c'était pas le plus indiqué pour pour succéder à Macky boo xoolee APR di mu tëggoo ak euh, orthodoxie bi et tout euh, ñi nga xamante ni ñoo fa nekkoon depuis 2007 2008 ci ànd ak Macky Sall bi ñu koy génnee biir assemblée nationale ñu ànd ak moom ba tey jii ñu xëy rek un beau jour ki nga xamante ni 2016 la ñëw ñëw rek ñu jël ko en quelques années tabb ko nii. Euh, ni ko mais lu président ba mu war ko mën tànn. doo xam loolu moo tax man la il est très redoutable Amadou Ba. bi ñu koy fal premier ministre maa maa ngi doon def tweet bu mel noonu ni xamu woon nit ki may après da ngeen découvrir kan mooy kan mooy Amadou Ba gën moo gën a moo gën a redoutable moo gën a na mën na am mën na am bañ am mais am na ñeneen peut-être ñu mu am fu mu téye euh, ba ñu ba ñu contraindre président à mu ce mu choisir ko il faut il ne faut jurer de rien avec lui Amadou Ba il est très redoutable finalement PDS boo déggee ni seen soutien it ca Amadou Ba lu lay bett lay doon am déet. bon dégguma soutien au PDS euh, ci Amadou Ba j'ai vu euh, trois tondus et deux pelés ñu taxaw ci kanamu presse bi <laughs> euh, xaw ma leen man d'abord ñooñu xaw ma leen ci parti bi j'ai vu un gars boo xamante ni après lañ ma wax turam ci ci commentaire yi ñu ne ma PDS la bokk xam ban ban section la bokk xam ban fédération la bokk PDS mais <laughs> man ko mosuma ko gis PDS hmm. et puis on a Abdou Thiam non pas Abdou pas Mamadou Lamine Thiam non pas Mamadou Lamine Thiam am na beneen Abdou Thiam. ki doon def déclaration bi je vous. oui ki def déclaration yow da nga ko xamoon avant. waaw xamoon naa ko avant. Ah, mais man je ne le connaissais pas sincèrement je ne le connaissais pas. te gisuguma te gisuma tamit ñi ko wëroon. xàmmeewuma leen ci instance su instance su parti donte bëri na ci ñu takkoon ay masques xamul tax ñu amul tax pourquoi le pourquoi des masques je n'ai pas compris aussi. <laughs> te du temps bee <laughs> wala dafa amaat ay dafa amaat ay ay kii corona ay cas corona on ne sait pas. mais euh, li ma li li woon gën. Hmm. firndeel ni PDS peut-être euh, am na am na fiction mooy ma gis député yi. Hmm. yi ñu ci tudd. ñu ñëw jàkkaarloog presse bi comme Mamadou Lamine Thiam mooy président groupe parlementaire bi ak yeneen député yi ñu ñëw dañuy soutenir peut-être euh, Amadou Ba. ñoom peut-être li def mooy invité seen leader ah. waaw Karim Wade à loolu daal la ñu doon wax invité député à ce que ñu rejoindre leen. mais démb on a vu la publication de. de Karim Wade muy wax ni moom euh, choisir agul te yi nga ni ñooy génn di wax yëpp. Euh, hmm. dañuy wax li ñuy wax du du noonu. bon nañ xaar sondage ak suba wala ginnaaw suba. mu ne sondage yi tamit li mu ko jox mooy ni daal kenn yeggagul. ci niveau moom bi mu nekk loolu moom moo jaaxal xaw ma ci ba niveau waaw waaw intention de vote. ci diggante bi naan avant ñu koy éliminer. yan kuréel ñoo def sondage ah, voilà voilà soo génnee rek ne sondage ba pare teg ci ne c'est clair deuxième tour moom. parce que ñi ñi ñi jéemoon wax ne sondage bi génn gis nañ ñi weddi donc. Euh, finalement waaw. waaw bu bu joxe daal na joxe waale kii <laughs> source bi nit ñi xam fan la fan la jógee. Hmm. mais parti démocratique sénégalais ci élection bi nii est-ce que euh, finalement euh, Karim mun na euh, faire la différence. ci bu soutenir. kenn ah, Abdou mi nga waaw ah, yàlla xaw xaw ma ko waaw xam naa ko. waaw gis masque yi laay réew masque yi gis naa dañoo soj rek. wala ngelaw gi la. ngelaw gi la dawal na fi président jour bi ñu doon tànn Amadou Ba. dañoo soj daal di def masque. Karim bu soutenir kenn ci candidat yi ça peut faire la. ah c'est toujours PDS c'est toujours un un appareil politique ah malgré que nag man pour man man jàpp naa ne man li ma jàpp mooy PDS doole bi ñu amoon amatuñ ko. par exemple doole bi ñu amoon deux mille vingt deux par exemple wàññeeku na bu baax euh, par rapport ak li fi jaar yëpp ak euh, vraiment ni ñuy def ak euh, conseil constitutionnel ak jaxase bi ñu jaxase dëkk bi ba ay ay décès am ci et tout déjà avant deux mille vingt deux seen poids électoral wàññeeku woon na ba ñu bu ñoo mujjoo lonko ak. ñi nga xamante ni ñooy waa Pastef pour am yi benn pour am benn kii bi euh, en tout cas yeewi askan bi pour am benn benn benn poids bi euh, mais pour man seen pois wàññeeku na bu baax a baax a baax mais donte nag c'est pas un pois à négliger c'est un électorat qui boo mm. xamante ni euh, peut-être cinq pour cent wala wala huit pour cent wu fichier électoral bi fidèle boo xamante ni peut-être du du du du du du du benn candidat mën a négliger boo xamante ni boo ko amoon dina la arranger trop pour pour pour sa pour sa. pour ce qui pour ce électorat euh, donc c'est pas c'est pas c'est un parti à négliger. seen ñaari ñàkk bokk ci élection présidentielle lan lay jural parti bi. bon parti bi de plus en plus mi ngi dem vers euh, voilà vers le déclin. 2019 euh, bokkoo 2024 bokkoo te amul benn leader buy dégagé wu. derrière pour mobiliser le troupes Karim Wade moom la ñu toujours moom la ñuy porté alors qu'il n'est pas là. Mm. il est au Qatar il ne veut pas venir. peut-être euh, sur le terrain ces challengers euh, donc euh, faudra pour man te pour man depuis 2019 avant 2019 la ñu waroon tànn ki nga xamante ni mooy incarner la succession la véritable succession de de de de Wade et c'était pas bokkul ak bu bokkul ak Karim Et pour man Karim il n'a pas assez eu de courage pour venir défendre vraiment le parti surtout le parti PDS parce que mënoo tamit jiite appareil politique bu mel ni PDS nga xam ne mi ngi fi depuis nga bëgg a Qatar bëgg koo jiite à partir bëgg koo bëgg koo bëgg koo jiite à partir des SMS wala ay WhatsApp et comme ça là non mm. c'est pas possible pour man war nañoo tànn. benn leader parce que ñàkkul woon y a des Madické Niang qui étaient là. Euh, y a des Babacar am na ñoo amoon na yeneen a incarner euh, leadership ni nekku fi parce que politique il faut être présent sur le terrain quoi qu'on dise li Ousmane Sonko ak Pastef rawee yeneen leader yi tey jii ba mën a nekk euh, ñu naan leen di tekkaleeg nga xamante ni mooy parti au pouvoir c'est parce qu'ils ont été sur le terrain à un moment boo xamante ni yi soxla woon nañ leen entre 2021 yi soxla woon